xibaari biti yi soxna Maam Fatou Kébé xibaari biti yi nag dañ koy dooree ak dëkk bi nga xam ne moo nag foqati nguur ko fa jamono ji nag attekat yi ñi ngi gën di fesal ay waxtaan mi ngi yi lépp jëm ci wàllum coup nga xam ne nag na weeru ñi ci gën a fes nag mooy Djibril Bacheli ak Guillaume Soro mi nekkoon ci assemblée nationale bu Côte d'Ivoire ca wax yee gën a nag ñi ngi doon wax yoon ñu mën a jaar ngir mën a amal boobu coup d'état mbir yi nag mi ngi gën a ñu dem ci dëkk bi nga moo di Cameroun kenn xam ne nag nekkoon na jëwriñ ci wàllum yoon nag moom lañ fa fëkk mbir yi nag ma nga xewe ca Bamenda moom Emmanuel nag boobaak léegi nag ay mbokkam amagul ci benn xibaar waaye nag buñ ci wàllum police ñi xam ne nag këram lañ ko fekk jël ko dem ci dëkk bi nga xam ne mooy di Mozambique gannaaw nag ngelaw lu am doole lu fa amoon nag faat lu toll ci téeméeri nit waaye tamit indi leen ay jafe-jafe yoo xam fa nekk rek di leen dimbali ña nga fa ngir taxaw jëm ci réewum Siin bu jiit réew ma moom nag muy amal kanam nag foofu ca réewum Italie bu ko jugee nag dina dem naa Monaco daal di jàll fi nga xam ne moo di ca Rome nag ci la xaatime nag ay dig ci yoon yu bees jërë ngeen jëf loolu la leen indi loon ci xibaar yi bi ci